mais lu jot rek yomb lu nekk ak. est-ce que passé wul laay wax non non non non non non parce que ba ñuy poser troisième mandat. Mhm. par exemple ñun euh, ñu ngi créé jàmmagun troisième mandat en octobre 2022. Mhm. ok. Mhm. en juillet le président bàyyi donc presque un an donc loolu moo nekkoon urgence parce que kenn du wax président neen wax mosul wax kenn dafa bëgg. président ñëpp xam nañ ne en tout cas observateur bu attentif mën na wax ne président bëggoon a def troisième mandat. mais loolu du woon urgence parce que bu même si jamais si Ablaye Wade def na ko fi te taxul sénégalais yi di donc su fekkoon ni xeex ngeen un fichier un électoral bu fiable. ba ngeen am ko Macky Sall bu décidé woon bokk sax face à un processus électoral bu normal ça il ne passera pas. non donc est-ce que foofu. Euh, non non non du foofu ñu war a mën bu décidé woon bokk réew mi dafay takk en vérité c'est-à-dire que loolu mun woon ne tey li tax Sénégal tey mu am jàmm ni apparent parce que kii wax na sànq mais jàmm apparent ba fi am. c'est parce que Macky Sall. mais pourquoi nga jàmm apparent jàmm moom Sénégal c'est pas apparent c'est pas semblant. Euh, non euh, jàmm apparent mu euh, Macky Sall du bokk moo tax mu am. bu bokk ne ba léegi mu ngi bokk dëkk bi dina jax dëkk bi dina yàqu. mais loolu ci wàllu lépp ne woon non bu bokkul dëkk bi day yàqu. gis nañu en fait dëkk bi aussi Ousmane Sonko ba mu bokkul aussi am na lu bari fi yàqu on a ah. ñu ngi wax cinquante morts ñu wax cent donc il y de morts il y de blessés parce que dañu bëgg Ousmane Sonko bañ a bokk donc loolu c'est des c'est factuel c'est des faits réels bu fekkoon ne euh, Macky Sall bokk na bon dëkk bi du mel nii benn ñaar lu nekk comme j'ai dit lu jot yomb lu nekk ak waxtoom dafa am période boo xam ne euh, troisième mandat moo nekkoon priorité ñu def ko priorité ba mu paasee ñu ne léegi nañ dem ci élection yi élection yaa ngi jublu li parrainage beeg li ñu wax yépp dara. ak dara dara est-ce que yaakaar nga ne dinañ leen tal yéen déjà même les candidats tardé gu ci.